Coumba Ndoffène Diouf dañuy ñëw ci parce que nañ ñëw deuxième partie bi ça va porter sur le, le financement des partis bu boobaa ñëpp dinañ mu ànd ak ñoom mais Coumba Ndoffène yaa ngi euh, nekk le secretaire général euh, des jeunesses socialistes bu Kaffrine comme par hasard le secretaire général du parti socialiste yow ak moom jamono ji jaaroo leen taal lan mooy problème bi foofu. Kajoor maa ngi lay maa ngi lay maa ngi nuyuwaat maa sa sa question bi nga tàmbalee euh, dis na trop hmm. parce que euh, responsable jeunesse socialiste bu jaaroowul taal ak responsable. parti bi ci boppam ci gox bi waaw c'est ça n'arrive pas souvent. ça n'arrive pas souvent et ça ne pas arriver. voilà loolu mooy problème. mais c'est arrivé. en l'occurrence Abdoulaye Wilane ah. je je ci liñ ci jàngat liñ ci jàngat mooy que ne euh, les choses bougent. les jeunes le bon sens ou dans le mauvais sens. dans les deux sens. ok parce ça va dans tous les sens. dans tous les sens. ok <laughs> d'accord waaw ah, les uns et les autres déroulent. kenn ku nekk mi ngi déroulé kenn ku nekk mi ngi déroulé parfois ñu déroule dans dans dans la légalité parfois dans l'illégalité. problème bi fon la jógee. ah problème bi fi mu fi mu jógee mooy je pense que le fait ñu bëgg a euh, dénier aux aux jeunes leur ambition euh, euh, de vouloir être utile. euh, à communauté de voir d'avoir des ambitions d'avoir de la neutralité problème fu lay jóge mhm. parce que Abdoulaye Dane suñu secrétaire général nga xam ne nekkoon naa chef de cabinet mu nekk meeru Kaffrine taxawal ko fu ne waxal ko fu ne liggéeyal ko ci lu ne te duñ ci xaarul dara donc lii bu amee parce que euh, am na beneen projet boo xam ne peut-être ñu ngi ci moom am ñeneen ñu ngi ci bëgg a àndal. te loolu nag en tant que ndaw xam ne dañoo jox responsabilité bi ñu ko jox responsabilité di ko jiite di ko jiite mu jiite mu jiite euh, coordination communale ak régionale. man dama jox responsable ma jiite coordination des jeunes au niveau de jeunes euh, communal et départemental. je suis obligé man tamit euh, je pose des des dëggal sama bopp poser des des des pas forts ndaw yi nga xam ne man la ñu àndal depuis le début continuer ànd ak man ñeen ndaw ñi nga xam ne gis nañ injustice boobu mi ngi am ñoom tamit ñu ñu dugg ci làng gi. ne on va créer une pour jàppale Ndofène mhm. parce que ñun moom lañu xam depuis le début moom la ñu àndal di liggéey ñu gis ay résultats euh, dans le cadre de la massification du parti à Kaffrine que les choses les choses bougent et l'arrivée du président en est une illustration donc ñoom ñu créé benn mouvement boobu pour vraiment dooleel ñu mais aussi lancé un appel au parti au secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye xamal ko nekk moom fa mu fi mu toog noonu ku ko ko bëggoon euh, xañ wala nga yàqal ko liggéeyam wala ngay teg ci moom ay. ndodam ay ndëgg sërëx ay ndëgg du ko neex. Mm-hmm. kon moom fépp fu fu mu am ci parti bi war na war na cee wax te lii ça fait presque deux ans wax nañ ci. dox nañ ci mais y' a pas y' a pas de suite.